bile bëccëg ñu ngi ko tàmbalee ak ndékki lu neex daal di koy séddale képp ku fa teewoon ñi bokk ci bile collectif des acteurs de la culture urbaine ci Yoff ñu ngi nettali lan mooy njariñu bile projet nga xam ni war na laal lu ëpp juróomi école la. projet bi moo ngi tudd waajal ubbi école suñu première édition mi ngi tuddoon euh, sàmm li ñu bokk deuxième édition bi tudd. suuxat suñu ëllëg on doit reboiser dix plantes au moins affaire bi ñu ngi ko defee ci école 1 vu que c'est la première école bu nekk Yoff aussi ñu tuddee ko Talla Diagne benn historique la moo tax euh, ñu ñu ñu choisir école bii nii. ay partenaires nekkoon ci ndaje bi ñu ngi rafetlu bi la jëf. daaw defoon nañ ko mu rafet am ay changements notoires yu ñu gis ci école yi ren tamit ñu ñëw la commune vraiment investir lu bari. ci école yi vraiment tey ñu commencé gis changement yi. école bi ñu mujj a duppee Jaraaf Talla Diagne alors kon école bi lu luñ fi tàmbalee war nañ ko mën a tàmbalee fii parce que ñi fi njëkk a jàng su ma juumul ay 1930 32 la woon kon école bi luñ fi def rek ne ko. seen initiative bi ngeen def rafet na trop. parce que tey école bi soo ñëwee fii malgré yàgg na nga xam ni. am na ñeneen ñoo xam ne daan nañ fi ñëw sax di def ay reboisement mais maanaam toppatoo bi tamit ñi ne ci école bi war nañ ci mën a gën a taxaw. boo xoolee école yi tamit pour ñu cibler mu gën a sawar ci école yi day tax ñu ñoo bëgg initier xale yi ci garab. ñu bëgg initier xale yi ci protection environnementale bëgg initier xale yi te leen cee éveiller pour ñu xam défi bi ñu xaar ci changement climatique bi. Ngouda Gueye bokk ci collectif di directeurs d'école ci Yoff mu ngay dëggal ne kilifa yi ŋànk bile école daan ñu def lépp lu ñu mën ngir sàmm yile garab. le fait que ñuy jëmbat garab di ko sàmm di ko suuxat dafay bokk seen éducation environnementale engagement bi ñu jël daal mooy ñun moom danañ ko sàmm danañ ko suuxat danañ ko téye ba bu ngeen dellu see déwén di ngeen fekk ni garab yi am nañ développement bu baax. nañu nettuwaaye jëmbat garab mooy ëllëgu ndaw yee. bile ba cëkk ñu ko buur ci anam bu mucc ayib. ci jamono ja nga xamante ne ñi ko fekkee ñëpp seen loxo ci suuf ngir samp fukki garab lépp rekk ngir mën a am aalam gu mucc ayib fii ci diwaanu Yoof